Thank you. asalaamaaleykum mbokk yi nuyu wat len ku nek sa tour ak sa santa ah, ñu la na jaajëfal bu rafet rafet rafet ci seetaan mi ngeen naa seetaan Gambian Talents TV ah, ba tay rek ah, di len dalalatal fi nga xamantene ni nii Gambian Talents TV ci benen li nga xamantene ni nii show ñu gëna ci biti nak di waxtaan nak ñi nga xamantene ni nii ñoy ay jigen len ñu ngi bay seen war ci rew mi ba tay ñu ngi daan seen doole amna jigen yo xamantene ni dañu japp business ndaw yi ni rek di ci daan seen doole ngir jappale li nga xamante ne ni moom mooy njaboot bi euh, mu nekk lu ama ama am solo euh, tey nag Gambian Talents TV ñu génn si biti ñu fekk si suñu jigéen bii nii nga xamante ne nii euh, mu ngi fay jaay mbuudaake mu ngi fay jaay botoscotch mu ngi fay jaay ngatu ba tey it mu li nga xamante ne ni moom mooy ay raba comme buñ ko fekkee fii nii mu ne mu ngi raba li nga xamante ne ni moom mooy sipa sipa nag la nekk di raba fi mu toll nii duñ def dara lu dul waxtaan ak moom nuyu naa la suma jigéen. maa ngi laa fay. man maa ngi tudd Rosalie. Rosalie Koli. Koli waaw maa ngi dëkk. Latrikunda Jaamaan. Latrikunda Jaamaan. waaw. soo yow da nga day jógee Latrikunda Jaamaan every day di ñëw jaay si fii. waaw maa ngi jógee Latrikunda chaque jour di ñëw di jaay si fii nii. Mm-hmm. waaw di ñëw di daan suma doole daal ndax xam naa ne daal. Mm-hmm. toogaay bi amul njëriñ. Mm-hmm. même am nga jëkkër sax dina la bëgg a defaral bari. waaye du ko dee mun moo tax dañuy jéem a jàppalante ñu jéem a góorlu ku nekk jéem a daan sa doole ñu génnee fii ma génnee fii daal loolu daal moo tax. Ah, loolu am na solo trop ah, moom nag wax na lu tax mu génnee këram ñëw fii nii nga xamante fii nii di daan dooleem ah, mu nekk lu ama am solo kañ nga door di jaay li nga xamante ne moom mooy ay mbuudaake ay ngato ak ay bataskoj. non fan yi rek la yàggagul nu amagul weer daal waaw fan yii laa ko doon door ndax si crochet bi rek laa nekkoon doon jàppandiku ko dama day toog si kër gi di raab ku soxla mu ñëw ne ma ah lii wag lii laa bëgg ma defaral ko mu dem mu daake bi léegi laa ko commencé di ko jaay ndax su ma mag bi moo ma si jàppale daal ne ma moo gën toogaay bi ràbb beeg lii yëpp daal nga defar mu daake beeg lii explainal ma naka lañ koy defalee lii wëg lii may ñëw di di ko boole daal si li may si li may def mhm. waaw noonu la daal. bu daake bi naka lañ bi moom dama dee jël mburu bu wow bi laa dee jënd si fuur bi su ma ko jëndee ma dëbb ko ma tame ko su ma ko tamee ma lay koy waaw mooy tame bi sama ko tamé ba paré ma dëbb sukar bi tamit ma ma ko tamit ma mix ko nga jël gerte bi tamit nga mix ko si la koy jël ma dëbb ko ma jël ko dege bi waaw ma jël ko ma dëbb ko si gënd bi suma ko dëbbee ba paré damay jël plate bi ma teg ko ci gënd bi ma dëpp ko suma ko deppé day fekk mu génn si lay doga jël paaka bi nak ma koy dog morceau par morso non la ko dé défaré jaay ke bi fi nak la dé doxé daf dé dox bu baax wala. waaw sante yalla sante yalla mi ngi dox. mu ngi dox waaw ah, nekk na loo xamante ne nii euh, soo ko seetloo si dëkk bi léegi dafa jafe neexut a gis am na ñoo xamante ne nii euh, bàyyi neen ko am na ñoo xamante ne nii fàtte neen ko am na ñoo xamante ne nii nag buñ tukkee la gaay gëj a gis li nga xamante ne nii nag moom mooy mbudaakee euh, ndax da nga dee offer benn catering service nit su soxlawee mbuudaake pour nga defaral ko waaw nit ku soxla ah, su soxlaa kay dinaa ko defalal mm-hmm. waaye gisaguma ndax nit ñaa ngi ñëw dañ dee laajte da nga dee gis kuy jënd 50 dalasi 75 sant yàlla mm-hmm. si am lu ma bëgg daal waaw moo gën toogaay bi. moo gën toogaay bi mu nekk lu am solo comme ni ma ko waxee rek euh, jigéeni Gambie ñu ngi daan seen doole ñu ngi ñaxadi njëriñ ñu ngi jàppale seen njaboot mu nekk li nga xamante ne ni Gambie bi lool leen soxla euh, ba tey nag ñu ñëw si li nga xamante si ñëw ñu ñëw si lii ñu gis fi nga gi waa euh, ngato gi moom noo ko dee defar. ngato bi dama dee saaf gerte bi su ma saafee gerte bi pare dama ko dee génnee ma xolli ko su ma ko xollee ba pare ndax su ma ko dee lu ma day jël suuf dama ko day def si sugeer bi noonu rek ma koy yëngal yëngal yëngal ba mu xonq ma génnee xoolit bi ma jël morsa bi ma fomp ko su ma paree ma dëbb ko si gënd bi su ma ko dëbbee ba pare ma teg suukaat bi su ma tegee suukaat bi ba mu dem ba nga xam ne seey na mu melt xonq si laay doog a jël gerte bi ma mix ko fekk gerte bi tamit dama day dëbb jinja bi su ma dëbbee jinja bi ma weer ko ba mu wow ma mix ko ak gerte bi yenn saa dama day jël essence banaan wala dara comme sa mu mën a am test daal mën a am flavor nga xam ne boo lekkee da ngay xam ne gerte bi am na ñam tuuti daal si laa koy def su ma ko defee suukar ba pare nga fekk teg nga taabul bi nga diw ko su meltee ba pare ma jël ko mix ko ba pare ma génnee ko def ko si taabul bi si laa koy dër su ma ko dëree ba pare tamit da ngay jël paaka bi tamit ngay dog di ko dog moo indi morso morso yii nii ma di ko jaayee benn tout dalasi tout dalasi benn tuur dalasi tuur dalasi ah, ngato gi naka la day doxee fii. ah sant yàlla moom tamit mi ngi dem. tamit. waaw mi ngi dem ñu ñëwaat gis fi li nga xamante ne ni moom mooy butterscotch. Ah, butterscotch nag <laughs> moom mooy comme xale yi miin neen ko comme ni ñu ko waxee loolu mooy business yi jigéen butterscotch bi naka nga ko dee defaree. ah butterscotch bi dama ko dee daaj comme ni ñu ko dee defee rek ma jël ko def ko ci pot bi ci sugeer bi ma teg ko si taal bi. xam nga meew mm, du ma dee use dara meew dafa am ndoxam. léegi noonu laa meer bu meew bu far bi waaw meew bi dafa am ndoxam noonu laa koy tegee su sugeer bi ba noonu laa koy nekkee di ko yëngal di ko yëngal di ko yëngal ba mu dem ba jàpp su jàppee nag si laa koy wàccee ma jàpp ko nag di ko dank tuuti tuuti tuuti tuuti te waaye xam nga meew du dee nekk benn façon par façon façon la gisoo bu tey nu mu mel xawta jàpp noonu mais yenn yi da ngay def rek mu dëgër wow koŋ waa par façon la yenn yi nga tombeel bu baax yenn saa doo tombeek bu baax bi waaw noonu la rek Ah, nga waxon si sa bir wax ne ah, ci rabu bi nga daan yëngatu ñu ñu fekk la ngay rabu di def li ah, li mom lan la li mom skat la skat waaw dama li amna na jigen bu ko mom mom mhm. ak mbubu la mhm. dama day defar yu bari ku nek façon bu bo bëgg dal dama ko day defar mhm. diko day jaay ba ba dang ci day am profit bu bari waaw sante yalla dama day am profit bu em nak waaw daf bu comme nu mu ko waxee rek euh, mu jigéen bi nga xamante ne. pertement daal lay bañ. dafa daan doole pour jàppale. pour jàppale mooy suma jëkkër. Euh, léegi soo ñëwee si euh, business bi yëpp in general. naka la day doxee. waaw moom laa la wax xam nga commencement loo gis rek doo jékki-jékki rek nga ñëw nga dox. xam nga da ngay raam. da ngay toog soo jàngee toog ba pare nga raam. nga taxaw. nga taxaw ba pare nga doog a mën a dox moo tax loo gis rek doo ñëw rek business bi bëgg a yëkkati ko bu baax a baax dangay dox ndànk ndànk ndànk ba fu la yàlla day yóbbul foo xam ne te wërsëg bi daal ñëw na waaw loolu daal laa ko jafe-jafe nga day jànkuwanteel. yan jafe-jafe ah tey mu dox suba du dox noonu la. waaw tey mu dox suba du dox ah, su su doxee nga kontaan su doxut nag am na su ñoo xamante ne ni dañoo caalit. déedéet du ma caalit du ma caalit du caalit caalit moom du am. Mhm. ma ne ko caalit du am sant yàlla. Euh, léegi am ñi nga xamante ne nii nag ñu ngi seetaan euh, ñu bëree di seetaan ju nekk si diaspora bi nekk bitim réew euh, am na si ñoo xamante ne nii nag dineen bugg a li nga xamante ne nii xam naa dineen bugg a bu daakee ngatu wala li nga xamante ne moom mooy botoscotch wala ba tey nga rabal leen lu rafet li soo ku si bëgg a jokkoo yow naka la moo jokkoo ak waaw ku fi bëgg a jokkoo mooy comme ni ma la wax rek suma nomba bi mooy 736 1786 man maa ngi tudd Rosalie Koli maa ngi dëkk Latrikunda Jaamaan waaw. Ah, Rosalie Kori dëkk Latrikunda Jaman ah, ñu bàyyi la nga bantu bantuwaat nomba bi rek. waaw 736 1786. 736 1786 ba tey mun ngeen a call Rosalie euh, mu jokkoo ak yéen rek euh, ngeen jokkook moom mu kéetar leen li nga xamante ne moom mooy mbuudaake euh, wala ngato wala butterscotch wala ba tey mu rabal leen raba yi rafet yi nii Rosalie nag leen fi toogal tey fii si Gambian Talents comme niñ koy defee rek dañu génn si biti tamit waxtaanal ñi nga xamante ne nii ñu ngi daan seen doole ñu ngi dajale jaay sew yi di jaayantu di jàppale li nga xamante ne moom mooy njaboot bi mu nekk lu am solo duñ def dara nag lu dul bàyyi la nga tàggatoo leen ñaanal ñëpp yàlla fu ngeen bëgg yàlla na leen fa yàlla yóbbu yàlla na leen yàlla dàqal seytaane may leen wér yaram lu ngeen bëgg tamit yàlla na leen ko yàlla may daal te te tele lii ngeen di def nii yàlla na leen ci yàlla jàppale. waaw kay moom lay ñaan. waaw kay ñu jàmm waaw kay. waaw ah, ñu nekkaloon fi tey kii nga xamante ne nii nag moom mooy ah, Rose Coly ah, moom nag génn si nag di jaay jaayantu yu sëb yi comme ni ñu koy waxee rek jigéeni Gambie ñu ngee daan seen doole ba tey it mën naa wax di leen wax gàcce ngaalaama di leen wax ne seen liggéey rafet na gis neen ko am na yenn jigéen yoo xamante ne nii fajar la ñoo jóg defar li nga xamante ne ni moom mooy seen jaay génn si biti dem daan seen doole ñoo jàppale li nga dem ñoo jàppale njaboot gi mu nekk lu am solo tey nag ñu génn si eh, Rosalie mu wan ñu li nga xamantene ni so amazing eh, eh, wëñ lay use ak course pin course sipa mu ne daf mubatamit, defar mbuba tamit different colors bu ga rek nga ak nomba yum la jox lo yoy non mu ñew rabal la wala mu kétal la la bu daakee wala bu ga rek mu défaral lako ko Gambian Talents TV nak li rek la ñuy def ak yeen ba it ñaax yeen ñuy sétane ngeen ñun ni bal ñu information am ko ci dëkk bi nek na lo xamantene ni yombut di fay li nga xamante ne moom mooy présentation présentation ki nek gana gannaaw caméra bi caméra bi ñoy ñu jënd ko building bu ñoy use tamit ñu fay ko nek na lo xamantene ni yombut ba tay ñu saaku nimbal si yeen ñi nga xamantene ni yeen ñoo sétane euh comme niñ ko waxé rek mënon nañu dem ci euh, government sector bi wala si private sector pour uti nimbal way alof ndjay dafa ne kul abal ay bët won la li nga xolé ñun nak ñoo bay ndax fay askan waa ngi si askan wi si askan wi te buti askan wala ñoo xolé mu nekkal lu am solo ba tay it ma ñaax rek so leena fa la ñew mëna sétane rek after commentary box bi di ngeen fa gis green box bu am Love Shine mané na ñaax rek ngeen subscribe suñu page bi nak ngeen mun ñoo dooleel every month 5 dollars rek mun naa nekkalu ndaw si way waaye ñun nag xeebuñ ko apprécier neen ko su ko défé ñu mun leen naa indil programme yu melni ci ah, si biir marché bi ci si biir marché bi ñu mun leen naa indil programme yu melni ah, news ah, ñu li si beyond the line face à face ak yeneen ak yeneen ci biir kër gi ñu leen naa jaajëfal seen déglu bu rafet té nak ñu ñëwon séti ki nga xamante ni jigen la ci réew mi di daan doolem ñu leen naa jaajëfal seen déglu bu rafet jërë ngeen jëf